Savajala, de l'huile d'Africaise. Rappelez-nous encore, monsieur, l'huile d'Africaise, c'est en anglais Si oui. quoi en français En français, c'est Femme, Droit, Développement en Afrique. Mm -hmm. C'est là. Voilà, qu'est-ce que c'est la pertinence d'un atelier euh, pas le diagnostic qu'on a fait au niveau de nos organisations. Euh, ça vient renforcer le problème de renforcement de capacité au niveau des organisations. C'était vraiment, euh, on l'avait soulevé. Donc il nous a, il nous accompagne pour vraiment préparer la relève. On parle de, c'est le collège des jeunes qui a initié ce projet. Aujourd'hui, on est là pour les renforcer en technique de communication et de plaidoyer, mais aussi initier les, les jeunes sur les notions de leadership. C'est pour ça qu'on est là, pour ces deux jeux qui regroupent trois régions, à savoir Thiès, Diourbel et Saint-Louis. Mmh. Et quel est le profil Ils sont sont une vingtaine. Okay. Ils a toujours on a des au niveau de nos organisations. C'est un défi pour vraiment préparer la relève. Donc, nous, on prend, euh, ce défi-là pour le traduire vraiment en objectif. Euh, d'accompagner les des pour bien les préparer, pour bien préparer la relève. Il y a la méconnaissance d'abord. On parle de méconnaissance des droits. Ici au Sénégal, vous savez, L'autre chose, si tu n'as pas étudié le droit, Donc on ne peut pas droits qu'on Donc c'est un défi au niveau de notre organisation, de bien les sensibiliser sur les thèmes de droit, sur les thèmes de violence, afin qu'ils puissent savoir euh, comment faire, comment gérer et aussi comment euh, euh être en Donc c'est un, défi que nous apprend de les renforcer sur les thèmes de droit aussi. De plus en plus, la notion de genre est développée. Vous mettez l'accent également Euh, les, les sexes. Vous euh, voulez faire allusion au retard Surtout ça, c'est un problème. Mais l'autre problème aussi, on vit en harmonie. Il y a les jeunes garçons et les jeunes filles. Et on ne peut pas euh, parler de jeunes garçons. Comment outiller, comment accompagner les jeunes filles et laisser en rade les jeunes garçons. Et ils sont appelés à vivre ensemble, ils sont appelés à vivre en société. Donc, nous, notre stratégie, c'est de prendre en même temps et les jeunes garçons et les jeunes filles, de prendre les spécificités, parce que ça se diffère, les spécificités, et les besoins en droit, et les besoins en connaissance, et les besoins dans la vie courante se diffèrent. Donc, il faut les prendre en compte. Euh, notre, stratégie, c'est de prendre et les jeunes garçons. Euh, l'aspect de la non-dénonciation, si on est au Sénégal, le ne est-ce que Dans le de cette formation, des stratégies. C'est pas de nous en communication. C'est parce que demain, ils sont appelés à descendre sur le terrain, de sensibiliser les gens, les gens sensibiliser la société, sensibiliser les autorités, sensibiliser les horaires droits. C'est en premier lieu, on les accompagne, on les renforce en technique de communication. de communication, mais aussi en plaidoyer. pour le changement de comportement, en plaidoyer pour le changement de certaines pratiques qui sont là. Donc, ils ont ce devoir-là le faire après ce renforcement de capacité. Donc, on prend en compte ces difficultés que nous vivons ensemble sur l'aspect genre, comme vous avez sur euh, le problème des, des, violences strictement basées sur le genre. Il y a des cas de violence. Mais qui sont ces, acteurs, de, ces, ces, auteurs de Qui sont-ils C'est beaucoup de points et c'est il y a la responsabilité de tout un chacun. C'est pourquoi nous prenons ensemble ces jeunes-là, que ce soit filles et garçons, et dans ces filles et garçons, il y a d'autres catégories qui sont là qu'on a pris en charge. waaw ah, merci Babacar tey dañu ñëwoon di tàggat ay ndaw ndaw yi bokk si biir Sénégal waaw projet bi nag ñu ànd ci projet voix et développement moom koy gunge euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw UNICEF Sénégal ñu dajale fi nag ñetti région muy la région de la région la région de Diourbel di tàggat ndaw ñi ci maanaam euh, ñu xarañ ci wàllu wax ci wàllu jokkalante muy communication ñu dolli leen aussi xam-xam ci wàllu plaidoyer ñu dolli leen xam-xam ci lan mooy leadership pour que ñoom ñi nga xamante ni ñoom la yaakaar ni ñoom ñooy suba ñoom la ñuy jox euh, lenge yi suba ñu dooleel leen ba seen taxawaay gën a mën am solo bu baax loolu mooy li ñu dajale fii tey ci ko defee ak ñaar fukki ndaw quand même war naa xam seere euh, nan leen fas yéene duggee ñu dañu commencé dañu door parce que ñoom ci seen bopp ndaw yi ñu ngi indi projet ñoom ñoo toog seet seen ay jafe-jafe bi ñuy def gëstu bi ñu xool yan jafe-jafe ndaw yi ñoom ñu amoon nañu jafe-jafe ci wàllu dolli leen xam-xam ci lii rek am na yeneen yoo xamante bii def nañ ko muy benn plan d'action boo dafa génn ci diagnostic bi VLF nag ñu ci gunge pour que ensemble ñu ak ñoom pour ndaw yooyu jafe-jafe yooyu nga xam ne génne woon nañ ko bu ñuy gëstu jafe-jafe organisation yi ñu mën leen a gunge ci loolu ànd ak ñoom aussi ci li nga xamante ni bii moom mooy indi solution wu jafe-jafe parce que bu jafe-jafe amee dañuy seet lan mooy saafara bi benn benn bi ne ci saafara yi am na yeneen yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko génne seen bopp pour ñu gunge leen ci. am si ay connaissance ak tamit ñu jël suñu prédécesseur yi maanaam suñu suñu mag yi nga xam ne ñoom nekkoon nañ fi ñu jël seen expérience. parce que ñoom comme ñoom ñoo fi nekkoon ñoo taxawal lu def te ñoom kese ñoo a wan yoon bi loolu moo waral a continuer pour a véhiculer bi daf mën a jëm si kanam. Euh, incha yi war nañu ci mën bi yëpp tamit si suñu mag yi lañ gën a war a mën a sukkandiku parce que parce que a fi nga teg sa xam nga c'est à partir de cela nag si lañ mën a véhiculer yenn message yi mais tamit il faut tamit ñu xool def benn concertation am yenn genre diagnostic bi nga xam ne gisoon nañ ko ni tam ñu def genre liaison entre mag ñi ak jeunes yi si ñoom la ñuy jàngee si ñoom la ñuy wootee si ñoom la ñu mën a sukkandiku pour mën a def li ñu def.